dikkati na inna lillahi wa inna ilayhi rajiwoon nii la Sénégal yeewoo de niki démb ci dibéer gi 24 heures yéeni kaay ne ma dimanche bu metti dimanche bu tiis dimanche goo xam ne doy na waar lool Sénégal daal di koy yeewoo niki démb l'info yéeni kaay ne ko Sénégal cib dëj la nekk Dakar Times daal ne ko douleur nationale niki démb la ñu am turbine yéeni kaay ne ko njombe gaa ngi xewee sa sikilo ab accident boo xam ne juróom fukk ci bakkan ñoo fa daal di rot l'indépendant ne ko déet fanweer ak juróom ñeent la 24 heures yéeni kaay ne ko déet ñeent ñeen fukk ciy bakkan ñoo fa rot ko di jeene ko juróom fukk ak ñett ciy bakkan ñoo fa rot tribune yéene kaay ne ko ëpp na juróom fukk en tout cas bakkan yoo xam ne daal dinañuy rot ci ñaari bus yoo xam ne ñoo daal di mbëkkante moom président Macky Sall yéene kaay bi dee média bi ne woote na ab dajub ñetti fan conseil interministériel boo xam ne war nañ ko def ngir jël ay mesures yu doy waar tribune yéene kaay ne ma xalif général des mourides ba ñu daal ci réew mi les éco yéene kaay ne ma xalif général des tidiane ni ki tey dina wax tribune yéene kaay Serigne Babacar Sy jox na rendez-vous ngir wax ak ñoom moom président Macky Sall yéen kaayub des médias bi ne ma am na enveloppe bu ñaari téeméeri million boo xam ni dégagé na ko système mu transport beet sàll ngaari lam buur géde nee na faw ñu soppi ko ndax nag dëgg-dëgg jëralul bakkanu doomu aadama yi ciy jaar Emmanuel Macron bokk ak ñun naqar bi xam le ni France ma ngay jaale Sénégal tey di wéy di nekk ci wetam Dakar Times ne metti na de kuy sénégalais niki démb yëg nga lu sa xol tooyee 24 heures bu mu tegalee fukki simili ak juróom ma nga ame ci commune bu yi fa dendee ak Sikilo arrondissement bu ñibbi la accident bi amee ci département bu Kaffrine réew mi ko dajee naan man terrorisme la de terrorisme boo xam ni yenn ci chauffeur ñoo ko nekkee homicide la ak maatay boo xam ne ñu ngi koy def ci suñu tali yi tribune yéen kaay ne ma bugaan géy dani ma ma nga ca Kaffrine di taxaw ña nga xam ne ñoo gaañu ak ñi faatu ci biir l'accident boobee moom bugaan géy dani ne nemmeeku na ña nga xam ne ñoo am gaañu gaañu xam leen ni it accident bi war naa tax ñu xoolaat suñu bopp dëgg-dëgg xoolaat xalaat suñuy jëfalin mi ngi sàkku ci góor gouvernement bu président Macky Sall bi ñu jël ay mesures ya ca war ngir accident yu ni mel nag dootul amati ci réew mi Mansour Faye ministre des transport ci la Soleil yéen a kaay ne accident bu méttee nii mësta am ba Sénégal sosoo ak tey Bougane Gueye Dany ci yéen a naan koon te ngeen war a poste ay unité médicale ci tali yi ci route nationale bi te ngeen yaatal route yi yokkaat at ñi nga xam ne ñoo war a am permis tàggatu gi it ñu gën koo taral ay équipe d'urgence yoo xam ne ay hélicoptère lan ngeen koy taxawal ngir bu tali bi amee a a nit ñi l'indépendant yéen kaay naan maan ñaari téeméeri million moom gouvernement gu Sénégal génnee na ko ci gafaam ngir jàppale ko ña nga xam ne ñoo ci am gaañu-gaañu njabootu ñu faatu yéen kaay bi naan maan loo ci mënti waxit coow li coowal horaire la l'observateur ne horaire yi dee ngi jeexal gaay yi ci bilan bu officiel fanweer ak juróom-ñeent ci doomu aadama ñoo ca faatu téeméer ñoo ca am ay gaañu-gaañu yéen kaay bi ne ma tey laa lay limal ñenn ñoo xam ne nag seenu histoire am na ci biir faatu ni ki barki démb te nga jàpp ne toll ci ñaar fukk ci ay néew la ñu identifié gum la te des kenn xamagu leen moom L'Obs ne ma am na teg soxna goo xam ne laataa moo faatu da doon laajte doomam bu góor bi nga xam ne accident bi da koo sànni ci biti awalum mi ñàkk bakkanam te dafa woon noonu lor am juróom benn ci weer yéeni kaay bi ne ma ñaar ñoo bokk benn baay faatu nañ ci accident bi ab soxna su am juróom ñetti fukki ak ñaar nga xam ne buy mooy wajaasam bu njëkk ci bus daal di cay faatu ci accident bi turbine yéen kaay naan maan ñeenti accident yoo xam ne dafa faati bakkan am na ci lu tollu juróom benn ci ay fan l'observateur naan kon juróom benn fukk ak juróom ci doomu aadama daal dinañu ñuy faatu ci benn weer fii ci Sénégal bés bi la jour ne ko juróom-ñaari téeméer ci doomu aadama ñoo daal di faatu diggante janvier 2022 ak tey jii ci réew mi libération yéene kaay ne ma ñaari bus yi boo boolee la ñu boot lu toll ci téeméer ak ñeent fukk ci voyageur la ñu yeboon moom bus bi nga xam ni moo waral accident bi bañ ko saytoo benn ci ay pënam baaxul Ibrahima Ndongo expert en transport ci bés bi la jour ne ma ne la pën yi mën naa bañoon clatere bu nekkoon ni vitesse bi ak itam lan nu yeb bariwul ba jéggi dayoo l'enquête ko di rek de sàggan gi daal daal jural faatu bakkan yoo xam ne daal dinay sakkan lool ay nit yoo xam ne gaañu gaañu yi metti na ay koor yoo xam ne daal na ñuy daggatoo daggatoo gu miti libération yéen kaay ne ma am na ci blessé yoo xam ne la ca ëpp saa si tembe ña nga ca réanimation ga Youssou Diallo naan nga waaye waay buñ ko politiqué nañ xam ne yàlla mooy faat benn doomu aadama amul sañ-sañ ci faatu bakkan Walf Quotidien mel ni ku naan maan waaye sabab lu it da cay am deret jaa ngi bëgg bari ci suñu tali yi moom président Macky Sall day ma nga taxaw victime yi ñu war a jëli ay mesures mesures yoo xam quotidien ma nga naan mbaa buñ ko jëlee du mel ni yéen fi jëloon daal di leen di tàbbal géej fa yàllaaw Ousmane Sonko daal dinay dakkal nemmeeku tuuram ba ñaari téeméeri million président Macky jox na ko ñi nekkoon te accident ba l'évidence yéen kaay ne ma boobu day ma ngay waajal wax waxeetam moom président Macky ndax nag daal dinañ koy investir ngir présidentielle ba tribune yéen kaay ne day kenn du ca mooy Ismaïla Madior ma nga xam ne ca haute couture la daal di jugee daal di ba muy neex tribune daal di ñëwoon bu rafet jongoma lool jekk lool mu daal di fexe ba solal ko patron xam leen ni nag bile costume bu jekk ku ko jéem a retouche daal di koy yàq moom Ismaïla moo ko laalal boppam fas yéene soppiwaat costume ba def ko trois pièces te du jot ndax nag saa si tembe costume trois pièces xewatul El Hassan Sall naan kon constitution bu réewum Sénégal dafa leer te amul benn interprétation boo xam ne mënees na ko ci def mani la kenn amul sañ-sañ am lu ëpp ñaari mandat ci réew mi loolu jeexal na wax bu juróomi at bu juróom at moo ci am ñaari mandat la ñu wax ku ko am mënatoo amaat beneen ak nu mënti tool nag el asan naan jaxase xel yeeg naxasaale gi na dakk juróom-ñaari at geeg juróomi at gi ñuy wax na dakk constitution bi yoonam nekkul ci juróom-ñaar ak juróom moom waxi mandat la wax te ñaar la ni kenn mënu koo weesu ci réew mi loolu moom ub na lamb ji jeex na léegi ko yéen kaay ne ma kiwub lamb mooy Karim Meïssa Wade ab communiqué bu mu bëggoon defal waa parti démocratique sénégalais statut whatsapp la ko def gaay yi jaaxle boobu tribune yéen kaay ne ma sàmm sunu Sénégal soxna yi ña nga daje woon ca Thiès ci week-end bi amal forum boo xool nees yeewee xeluk askan wi rawatina yu soxna yi ba ñu mën a demal seen cëggal guy wan soxna yi lan mooy force waaye itam faiblesse bu entrepreneuriat féminin wan leen yoon wi nga xam ni mën nañ ko daal di joyantee Fatou Bintou Ndiaye naan leen soxna yi war ñoo nekk ñuy seetaan waaye dañoo war a nekk ci biir système bi di ci def ak dindi di ci jëli dogal waaye tam di ci jël ay position réew mi metti na metti goo xam ne nii ku taxaw di seetaan dëgg-dëgg complice nga ci coono yi sénégalais di dund tribune yéene kaay a téeméeri million mu daal di koy jébbal ñi nga xam ni ñoo faatule waaye tam am gaañu-gaañu ci accident bi yor yor ni bu leen fàtte ni président Macky Sall investir nañ ko ay ñoñam ñoo ko bëggal ñetteel bi mandaa ñaari téeméeri million ñu def ko it ci manifestation gi ak lu mën a am mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm